salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. alors tey nag moo nekk suñu euh, résumé hebdomadaire numéro 3 ci événement bu mag boobu nga xamante ni euh, route euh, route SN moo ko organisé maanaam Gérard Dacosta ak équipe am mu nekk octobre cyber 2022. alors defoon nañ nag résumé 1 résumé 2 tey. la ñuy def résumé trois bi donc chaque semaine comme ni ngeen ko xamee dañu chaque fin de dañuy def benn résumé boo xamante ni dañuy wax lépp li nga xamante ni jotoon naa xew euh, euh, ci ci ci ci ci semaine bi alors résumé 1 ak 2 bi nag ñu ngi ko defoon ak Lena tey nag je pense que dañoo am kenn ko xamante ni moom la ñu dalal muy ndeyu bi ligi comme ni ma koy waxee muy Gérard Dacosta il était en voyage mais dinañ wax ci loolu du ma spoiler dara quoi alors Gérard nuyu nañ la bu baax a baax dalal ak jàmm ci podcast Wolof fay naa la fay naa la naka mu yaay si yow. sant yàlla bu baax alhamdulilah Issa. oui ça va. maa allah non tey kon yow yaay ñëw euh, fas yéene def résumé bi euh, mais dinañ wax dinañ wax après ci benn affaire bu am solo c'est-à-dire benn voyage boo demoon Inde euh, di ñu ci wax après incha allah d'accord. yaa ko souci. <laughs> ok Gérard mais Gérard je je rappelle aussi que Gérard aussi ci kër gi la bokk parce que yàgg ci podcast la fi def sax def na fi ay épisodes bëri. Euh, voilà après ça <laughs> sa sa bi parce que xam nga ci suñu site bi euh, ku mos a jaar euh, ci ci ci ci ci émission bi rek ci podcast bi am na benn la boo xam ne mais incha allah dinañ ci travailler après tu vois mais yi nga def ci podcast bi yëpp dinaa ko fa dugal incha allah après dinaa ko partager nga bokk quoi. <laughs> waaye gis nga voilà <laughs> ñu dem donc suñu épisode tey bi xamante ni moo nekk résumé hebdomadaire numéro 3 événement octobre cyber 2021 alors Gérard euh, ci semaine bii nii ñu génn euh, mooy semaine bii nii ñu génn nii nii euh, def nañ def ngeen ay événements yoo xamante ni yu am solo la je pense que bi nga xamante ni moom la ñuy njëkk Euh, attaques yi déjà moom la ñu njëkk moo nekk euh, événement bi nga xamante ni webinaire bi nga xamante ni def ngeen ko ak Mortal Gueye et Altine Diop euh, moom moo ko doon moom moo ko doon moo fa nekkoon ak Mortal Gueye alors ñu doon wax ci les données personnelles ka Android alors lan mooy lan moo nekk derrière webinaire boobu maanaam lan lañ fa jëlee comme ay ay xam-xam yu bees ak lan lañ doon Mortal Gueye doon waxtaanee ci les données personnelles cas Android boobu noonu. donc euh, merci si parole boo ma jox mm-hmm. donc euh, euh, premier webinaire boobu la ñu def euh, si semaine trois bi mm-hmm. mooy jour dix huit lañ ko def donc boobu dafa doon wax si données personnelles après ñu jël cas Android donc mm-hmm. je pense cas Android bi excuse la rek pour vraiment mën a aborder question yi parce que gis nañ que foofu noonu le données personnelles yi di gën a rëcc contrôle nit ñi donc euh, Mortala moo ko animé mais daf ko co-animé ak benn beneen euh, nit koo xamante ni mu ngi joxe lu bëri si si xarala tekki yi. Mhm. Euh, turam Thierno Diop la te presque affaire sécurité yëpp yu muy def en wolof la koy def. Mhm. donc mhm. vraiment benn jeune bu bu passionné. donc voilà donc ñoom ñaar jot nañu définir lan mooy données personnelles mooy loo xamante ni par exemple mooy. ay information yoo xamante ni mooy permettre ñu mën Mhm. xam mhm. nit ki kan la sans ñu dugg ci fond bi léegi ci biir données personnelles yooyu am na ay données yoo xamante ne dafa nekk données sensibles mooy loo xamante ni mhm. mën nañ xam yow yaay kan mais lan moo lay euh, lan mooy sa essence même par exemple yow sa religion euh, sa appartenance politique affaire yooyu noonu te am na données yoo xamante ni par exemple waru du ñëpp ñoo ko war a am quoi ok parce que données yooyu noonu imagine nga nekk ci benn territoire boo xamante ne dañoo bañ par exemple ay musulman wala ñu bañ ay catholique mhm. ñu xam ko yow catholique nga wala musulman nga xam da ngay nekk en danger. exactement si wala nga nekk ci zone boo xamante par exemple ñu ne ñëpp ñoo xamante euh, parti politique bii la mhm. ñooñu dañ leen a rey. te fekk yow ci parti politique boobu nga bokk ça veut dire que yaa ak mhm. danger. exactement donc loolu yëpp la gars a Euh, genre relâchement bu am si protection données yi parce que tey ni Android gis nañ que ñu bëri dañuy développer application euh, mu moo ëppale application que iPhone te ni par mm-hmm. exemple exemple bu gën a yomb bu mu war a mën a jël mooy euh, tey ni am na application yoo am na si Android te amul si iPhone mm-hmm. parce que tey pour déployer benn application boo xamante ne da nga ko bëgg a teg si Android moo gën a yomb mm-hmm. que nga déployer ko pour def ko si si iOS ok parce que foofu dafa contrôle boo xamante ni dañ dañ ko appliquer pour mën a. Mhm. est-ce que nit ki respecté na. intégrité ak protection données nit ki. tandis que si Android ku nekk day jóg. Mhm. développer benn application teg. Mhm. mais gis naa que Android commencé nañu ñu di changer. ok ñu ngi commencé di pour xool. parce que tey nii xoolal ñaat application par exemple xam nga tey nii euh, ñi ñuy woowee ak réew Ah, dañuy dugg sa bopp dañuy xool lan la hmm. par exemple dañuy gis que nit ñi soxla na ah xaaral ma mun a ay ay texte xaaral ma mun a hmm. gratuitement moo gratuite bi la nit ñi di war na di moytu léegi yow boo téléchargé hmm. par exemple sa est-ce que mun nga ñu ko bàyyi ñu exploiter café yow nga ne non non boo noonu ngay wax lan moo la garantir si ginnaaw est-ce que ñoom ñu def ñu ngi ñu Mhm. moo tax léegi ñoom euh, mhm. ñu expliquer mhm. Talla ak Thierno expliquer que waruñu def confiance logiciel yooyu noonu surtout logiciel Android yi que mépp lépp dugal si internet si suñu téléphone dañ ko war a contrôler du lépp la ñuy dugal parce que xamuñu suñu données yooyu noonu ñooñu nekk si ginnaaw lan la ñuy nekk di def si suñu données yooyu noonu moo tax waruñu jox confiance appareil yi muy iOS muy Android ñoom yëpp ñoo yem euh, tey ni par exemple ñun ñoo ko defar ñun dañoo di consommer Mhm. donc tey nii yow da nga war a jàpp si sa bopp lépp laa fa war a dugal. Mhm. donc surtout tamit si Android. parce que mhm. loolu moo nekkoon débat bi euh, est-ce que war naa dugal lépp lépp lépp si sama téléphone. c'est exactement tey par exemple question boobu noonu. Euh, tey même yow en tant que nit. est-ce que war nga mën a di jël say secret di ko confier nit. secret bu nekk. waaw ça question la. def très grande question. c'est la même chose. que yow nga yore sa téléphone muy mhm. Android muy iOS ngay dugal données yu nekk donc am na ñeneen dañuy am confiance totale si seen téléphone de telle mhm. sorte que mhm. tey par exemple bu nekk lañ fay dugal par exemple tey sa téléphone mun nañ ko sàcc buñ ko sàccee euh, yow euh, gis nga techniciens yi léegi pour mun peut-être si iPhone dina gën a métti mais si Android fat fat gars yi génnee code bi Mhm. après accéder si say données. donc da ngay jékki-jékki imaginer nga dugal ay photo yoo xamante ne naka sudul noonu. Mhm. wala nga dugal ay données code bancaire wala affaire yooyu noonu donc yaa ngi danger. yaa ngi danger ça c'est sûr. yaa ngi si danger mhm. yëpp mooy ay aspects yoo xamante ne. Euh, dañ ko war a di moytu. donc ñoom ñu woote ñoom Talla ak Thierno woote si loolu. ne carrément nit ñi moytu leen. certes ay outils la yoo xamante ne mën ko utiliser. Mhm. mais suñu données personnelles tey nii mhm. war nañ mën a am si données yooyu noonu xam lan mhm. la ñu war a dugal. ak lu ñu war a dugal. parce que lépp loo xamante ni euh, appareil la yoo xamante ni du yow yaa ko defar xamoo si ginnaaw lan lay fonctionner xamoo sécurité bu nekk si ginnaaw. bu nekkee da nga lu si nekk yow yaa nekk di euh, di lor sa bopp. ça c'est sûr macha allah loolu la et dañoo doon sensibiliser nit ñi pour nit ñi gën a moytu. exactement gën a moytu xam. Euh, raison garder en fait lépp ngay dugal si si si si si si si sa appareil. exactement je pense que loolu am na solo torop sax ah, man je dirais même que ne euh, éducation numérique la tu vois parce que tey boo xoolee eh, ñi nga xamante ni ñoo yor seen téléphone yi. Euh, au que ñi yor téléphone si mën na ko compter tey bëri trop quoi et ñi ci gën a def nag peut-être boo xoolee ay dérive ay xale yi la tu vois yi nga xamante ni peut-être atteindre guñ sax yenn maturité yi nii alors je pense que euh, genre euh, émission genre genre yu webinaire yu demee nii c'est hyper important parce que da leen di éduquer da leen di xamal li nga xamante ni moom lañ war a naka lañ war a utiliser cette application mais aussi xam li danger yi nekk ci ginnaaw parce que je pense su mesurer wul danger bi nekk ci affaire li muy def rek du mën a jël précaution qu'il faut et comme euh, éducation la boo xamante ni waa dina baax trop ci jeunesse bi mais dina baax aussi ci mag ñi parce que mag ñi ñoom ñooy surveiller xale yi tu vois bu fekkee ne mag ñi xamuñ lu xew. xale yi aussi mag ñi duñ mën a eh, wax xale yi def leen nangam ak nangam tu donc je pense que tey euh, mbir la boo xamante ni la war a dal ñëpp la ñëpp ñoo war a jot ci information yi demee noonu et je pense que webinaire bi dinañ ko di ngeen ko defaat replay comme ça ñi ko raté woon mën ko déglu je pense que après dinañ eh, di jox euh, liens yi comme ça ñu def ko ci notre podcast bi nest pas. waaw parce que instant yii nii chaque euh, actuellement ñu regroupé. Mhm. Euh, webinaire yëpp ñu am. waaw dañ koy mu nekk mu nekk sous forme de ci replay TV. macha allah euh, nit ñoo xamante ne euh, jot nañu raté. Mhm. rate ñu mun ko seetaan. mais man comme nu may wax mhm. vraiment gars yi fu ñuy seetaan di assister parce que jeunes yi vraiment ñu ngi wane seen talent. wane que maîtriser nañu affaire yi te il faut que ñu tàmm am confiance si suñu. expert expert local yi. parce que ñu ngi ñu am solo. macha allah macha allah non loolu c'est vrai c'est vrai déjà euh, yow rek yaa ngi noonu quoi expert local bu bu extraordinaire nga. <laughs> mais léegi nag yaa ngi yaa ngi commencé dem yaa ngi yaa ngi dem international te affaire boobu moom ñeme ñeme wu ma ko dara quoi. <laughs> <laughs> waaw ko quoi la si ñun quoi mais anyway dinañ ci waxtaan léegi alors euh, Gérard beneen point bi ma bëggoon ñu waxtaan mooy seen webinaire numéro deux bi c'est-à-dire man bopp man euh, mi sax j'ai pas eu la chance ma assister ko. mais bëggoon naa xam lan la exactement mooy euh, le dark pattern piéger les les les users grâce au design alors titre bi sax man liir naa ko ñaar ñett yoon mais xaw ma exactement c'est ça lan lay wax ko est-ce nga ñu éclairer lan lay wax ak ñi nga xamante ni aussi raté dañ ko buñ fa demee lan lañ fa mën a fekk comme xam-xam yu bees. voilà donc euh, lu intéressant mu ngi noonu. Mhm. Euh, man webinaire bii nii daf ma rappeler benn célèbre phrase boo xamante ni euh, si benn film laa ko mooy Spiderman mooy bi ñuy wax euh, mhm. boo amee pouvoir yu bëri da nga am ay responsabilité yu bëri ok donc tey design bii nii muy Bamba lu ñu proposé mooy daf ñuy wonal naka la ñoom ñu mën a piéger utilisateurs yi grâce à sen design yi donc si la dark pattern bi donc dark pattern en en en gros hmm. ay astuces la yoo xamante ne gars da dañ koy utiliser si site web yi wala application yi yoo xamante ne de day nit ki mu mu def loo xamante ne amul intention def ko mais genre affaire bi daf koy attirer ba nga xamante ni moom da ngay def te du ko tey quoi en par exemple. tey par exemple dañuy def design boo xamante ni xam nga ñoom dañoo ay si si si macha allah. Mm-hmm. wala defal benn site boo xamante ne yow de telle sorte que yow sa bët yi ak sa couleur dina la dina la pousser nga nga cliquer si affaire bi sans nga tay ko quoi. parce que tey nii. Mm-hmm. voilà loolu la. Euh, tey nii am na exemple yu bëri par exemple man ak sama téléphone euh, euh, sama téléphone mais jékki-jékki rek gis que ñu ne ma xaw ma dañ ma invité. Mm-hmm. léegi benn réunion démarré. ajouté nañ ko sama agenda man je comprends pas. ma jékki vérifier si agenda bi ah. mooy xalaat kañ Mhm. pour participer si événement bi. Mhm. Mhm. alors que euh, moom ci ci technique yu mu yu mu yu mu yu mu yu mu yu mu yu am na loo xam te lu solo lu am solo. mu ne euh, lan moo tax euh, affaire yi di ñu di ñu dal mooy nit ñi en général du ñu bëgg lire dañuy scanner rek genre ñun du ñu bëgg lire par exemple li ñu gis nii rek dañuy jékki-jékki bës en fait ñun mi di nekk ci internet dañuy. dañoo tàmm affaire robot boobu noonu dañuy gis benn affaire rek bës. waaw du lire du jël temps. et puis dañoo voilà nekkuñu euh, teewuñu dara ah nekk impatient. loolu moo tax affaire yi di dox. donc loolu moo gën a tax loolu moo gën a tax ñoom seen attaques yi di di dox. Mm-hmm. donc mu am leneen loo xamante ni wax na concept yu bëri ay mooy les biais euh, cognitifs par exemple yow cognitif comme ni ñu koy waxee rek dégg-dégg nga dégg par exemple yow sa morom am na iPhone yow nga am Android. nit ñi di ne ah iPhone moom ak a baax. Mm-hmm. yow nga dem ba xeeb sa téléphone. Mm-hmm. après benn bés jékki-jékki rek nga gis benn design bu leen ne mun nga gagné iPhone. Euh, mm-hmm. cliquer si lii nga bokk si benn. en si sa xel bi tak xalaat nga que am naa chance am tamit iPhone comme sama morom bi. xaaral ñu ma ma kii si. donc yow nga dugg nga nekk apa. xam nga nga nga piégé la. na tamit loo xamante ne mooy euh, roche mortelle. xam donc. Euh, yow par exemple da ngay da ngay da ngay cliquer dugg si benn euh, newsletter. Mhm. et après pour nga génn si problème la quoi par exemple doo xam vraiment technique man. Euh, yaagul mhm. bu ma xamee. voilà man yaagul bu ma xamee si si si iPhone. Mhm. Euh, su ma duggee par exemple si genre affaire yooyu fan laay génnee. après si laa dem xool da dem si paramètre dugg si agenda. après wër. agenda boo xam te dafa ajouté wu si sa kii sànq nga génn nga doog ko supprimer. pour génn si parce que yow même boo demee si sa agenda jéem ko du dem. donc ay affaires yoo xamante ne du taf taf mu ñëw nii mhm. donc day nekk loo xamante vraiment nga bind ko nga ko nga sur internet pour gis ko. Mhm. donc yow da ngay jékki-jékki rek gis te gis na am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi vivre vivre da ngay jékki-jékki affaire si sa téléphone yow fàttali ko fan nga ko parce que yow da nga sous forme de réflexe quoi. waaw si si da ngay page rek mu am beneen affaire buy affiché mhm. si kanam. tu automatiquement au lieu que ñu tey. Mhm. dañuy bës bës ba bës léegi. Mhm. dina tombé affaire bi feeñaa lay fekk ñu bës ko sans bàyyi si xel quoi. après loolu ay ay ay donc ay services yoo xamante ne vraiment mu am euh, force euh, force continuité. Mhm. genre da ngay gis ay services yoo xam ñoom dañoo muus. da ngay da ngay da da ngay da lay proposer ay services mais duñ wax si ginnaaw. que service bi euh, dina am ay ay frais. dina am ay frais wala dina am ay ay da nga war si iPhone tam daf may daf may dal yenn saa damay bëgg euh, télécharger jeux wala benn application. Mhm. au départ <laughs> duñ ma wax que après dama war a fay damay installer ba pare. Mhm. après su ma installé ñu ne ma léegi. version d'essai bi nangam jour la léegi su ma dem si version pro bi. Mhm. Euh, nii alors que installé naa application ba pare donc. Euh, ñoom ñoom ay nañ si si loolu. donc mu am tamit hidden cost bu mu Mm-hmm. Euh, Bamba moom proposé nañu thème yu bëri ah. Mm-hmm. bi foog gars yi replay parce que il a proposé beaucoup de concepts. ça c'est concept mooy par exemple loo xamante ne. Mm-hmm. ay donc loolu a traduire maanaam fay bi dañ koy nëb. par exemple téléphone bi day jar mille francs mais ñoom par exemple yow duñ la wax frais d'envoi bi taxi bi ak yooyu ah. ñaata dañ rek téléphone bi mille mille francs jar léegi yow boo dugal ko ci sa ah. nag booy valider ngay doo gis ñu Mm-hmm. waaw téléphone 1000 francs la mais après war nga fay ta taux bi war nga fay lii. après mu ngi revenir de si si si si si si. ngi gis. si si donc après yow bon nga am y' a façon façons yenn saa yow dem nga ba waaj a valider. Mm-hmm. donc yow après da ngeen di ah xaar naa valider. Mm-hmm. wala yenn saa yi mun nga annuler wala imaginer tey par exemple nga bëggoon ko jëndal sa chéri ngeen toog ngay valider. ngay xool tey par exemple boo ko bëggee day ne ah kii nii moom yoru ko. waaw donc di ko yore. Ah. Ah, da ngay am abra quoi da ngay am problème. da da ngay validé voilà. da ngay da ngay da ngay day lay day lay dañuy jël prix noonu te yow après yow di nga xam que vraiment am nañ la quoi. soo woon dem jëndi ko presque hmm. di nga ko am moins cher par exemple mun ko am mille deux cent cinquante au lieu de mille cinq cent. waaw ça tamit eh, déguise at wax na concept boobu noonu yoo xamante ne mooy annonce publicitaire yi yoo xamante ne dañ koy intégré si ay design. Hmm. Euh, identifier tel ou tel utilisateur. Mhm. voilà donc am na concept yu design je pense que je pense que émi euh, replay boobu moom da ngeen ko war a gaaw indiwaat quoi parce que man mi sax bëgg naa ko seetaan déglu euh, si si si ça m'a important parce que ay attitude la yoo xamante ni des fois da nga koy am di def ay trucs yoo xamante ni par inadvertance doo ko sax tay quoi da ngay jékki doo ko tay parce que benn affaire parce que da ngay bëgg yow page bi dem yow li nga soxla mu ñëw quoi da ngay jël rek mu dem et on a comme ni nga wax léegi on amuñ habitude yokk foofu beneen affaire que am na ñoo xamante ni peut-être mënuñoo lire wala bu ñu lire comprendre loolu aussi day am dañuy gis ku am téléphone iPhone am bu baax iPhone 13 am mais degré de lecture am sax demeewul noonu li mu moom xam na ne mun na dugg WhatsApp mun na dugg nangam mun na dugg TikTok mun na dugg lii def lim soxla mais boo xoolee am na ñoo xam ne lire sax mënuñ ko mais donc def attention bu baax tu euh, boo xamul da ngay laajte man je pense que toll nañ en deux mille vingt deux euh, jamono boo toll nii boo xamante ni am ay lu mu ëpp cinq dix personnes yu la wër yoo xamante ni mënuñ la wax li ngay mënuñ la expliquer la affaire quoi tu vois donc à chaque fois su fekkee ne yaa ngi bëgg def benn affaire mun nga aussi laajte balaa nga def parce que nit ki foog nga sopp nga laajte euh, yu mel nii tu vois euh, wala nga questionner ay ñoom Gérard Dacosta nit da ngay sopp que je pense nit moom da ngay boo gisee loo xam ne xamoo ko moo nga dem ba dugg ci loo xamante ni euh, du baax ci yow après parce que nag dañuy dégg atu tout moment rek ne dal na diw dal na diw mais ni mi dalee diw noon la ñu mën a dalee donc il faut que nit aussi di bàyyi euh, xel ci lool je pense que webinaire boobu am na solo trop à Gérard. si si te am na lu mu bëgg mooy am na ñeneen ñoo xam ne ils sont mhm. tellement fiers. Mhm. Gérard rus nañu ne par exemple xam nga laajte benn Gérard Dafosa wala ma Ibrahima laajte benn euh, Ibrahima mhm. donc ñoom. Euh, ils par exemple su ma laajtee rek loolu défaite la si man ainsi de suite alors que du loolu tey par exemple nit ñi lan lañu dafa am ñeneen mhm. ay informaticiens lañ mais si informaticien dafa am deux utilisateur avancé lañ leen di woowee mhm. ak ñoo xamante ni ñoom ñooy informatique mhm, tey da ngay gis ay informaticiens man j'ai eu beaucoup de cas yoo xamante ni gis naa ay informaticiens yoo xamante ni ils sont dans des pièges yoo xamante ni naka su dul noonu ñu dem dugg si dugg si dugg si ba piège yi mënatuñ si génn ñu doog a dem ba mu sës. Mhm. doog a ñëw. Mhm. alors ñu waxoon ah, leen jàppale mais pour ah, man en tant que informaticien ma tombé si loolu. Mhm. non après loolu défaite la alors que par exemple muy kon muy keneen. mun nañu def erreur yooyu noonu mun nañu ah man mii sama bopp am na benn bés ma daal benn gayan boo xamante ne mais. dama am réflexe bi si saa si. rek mu coupé. parce que dama jékki-jékki rek jot benn message. Mhm. rek moo am benn lien c'est que man problème mooy dama mooy comme lu ma wax erreur boobu noonu da ngay ubbi rek bës. waaw si si complexe dama ubbi mhm. rek bës. rek mhm. tombé rek sama xel bi ñëwaat rek ma coupé. après gars yi ma textoo ko ma ne ko yow sa kii bi après si la moom mu xool mu ne ma et du moom moo ko yónnee te presque contact yu contact am yu jot nañ ko. après si laa xam ne léegi changé defal nii affaire yooyu noonu. donc man mii sax en tant que yaa xamante ne bokk naa si milieu bi. Mm-hmm. <laughs> damay def erreur yu mel noonu. koo xamante ni amoo réflexion yooyu noonu. ça c'est vrai donc bu ñuy ruus di di di layte di dem di. Mm-hmm. xam nga di gëstu bu ñu defee erreur layte. Mm-hmm. nit ñi dimbale ñu nañu mën a kii suñu responsabilité. parce que ñu bëri lan moo tax euh, ingénierie sociale wala yeneen attaque di dal c'est que duñu bëgg jël seen responsabilité. waaw dañuy bëgg a nëbbatu fu ñu nekk après ne non naa trop ñu ñu ne man la def. bu ñu koy def xamoo donc jëlee ses responsabilités e Sénégal jëm kanam. ça c'est vrai pense que je euh, am na solo trop euh, te euh, auditeurs yi aussi dinañ ci bàyyi xel jéem a adopté wu adopté comportement yooyu nga xamante ni c'est juste pour aar li ñuy wax ni yëpp nekkul pour suñ bopp mais voilà pour pour ni ñu mën a aaru la voilà Sénégal jëm kanam voilà danger yu bëri ñu bañ ko am. alors Gérard dañuy jàll ci beneen webinaire bi nga xamante ni moom tamit def ngeen ko mu nekk webinaire webinaire am solo aussi webinaire bu am solo mooy nekk comme référence numérique comment. pouvons-nous garantir la sécurité de nos clients nga xamante ni yéen a ci àndoon ak Abdoul Aziz Diallo euh, Alternate Top Alternate Top je pense waaw Alternate Top aussi moom moo nekkoon euh, ci biir euh, émission boobu aussi di ko animé ak moom alors lan lan lan moo génnoon ci seen web ci webinaire boobu noonu ngeen xamante ni def ngeen ko ak Abdoul Aziz Diallo mais aussi naka nga ñu mën a définir thème bi aussi ak objectif bi. webinaire bi c'était intéressant parce que ñaari aspect la laal. Mm-hmm. marketing. ok euh, digital lépp luy marketing digital euh, gérer image client bi ak yooyu noonu ak beneen aspect bu ñuy woowee aspect sécurité. donc affaire bi dafa laal deux aspects. donc par exemple ñii tey seen webinaire dafa nekk benn importance capitale mooy wane que client bi du genre client rek nga xëy jàppee quoi. genre da ngay ñëw euh, fay na la sa xaalis yow defal nga ko liggéey bu muy kii jeex na ñoom si aspect. defal liggéey nit ki mën a visible yooyu ñoom dañ ci yokk couche sécurité mooy dañuy jël nit ki defal visibilité maag yëpp mais protéger ay données parce que ñu bëri erreur boobu noonu la ñuy def dañuy ñëw rek technique nit ki dafa soxla visibilité rek mhm. voilà ñu jox ko mais après client bi du ñëwaat parce que benn bés bu amee fuite de données wala affaire yooyu noonu nee ne am naa visibilité mais samay données c'est pas sûr donc après du ñëwaat mhm. mais yow tey client boo ko ñëwee woon que mun tax nit yu bëri Euh, integre sa entreprise gis li ngay def xam li ngay def mais ci ginnaaw dinaa la woon yow tamit nooy protéger sa sa vie numérique ak nooy protéger say données. yoo xamante ni même man données yoo xamante ni maa ngi koy exploité yoo xamante ni yow moom la moom dinaa ko protéger tamit même bu nekkee comme xam nañ ko sécurité à cent pour cent amul. Mhm. mais tamit dinaa def effort protéger données yooyu noonu. ok ok donc ñoom aspect boobu noonu la ñuy wane moo tax après mom daf ko co-animé ak euh, présidente Daara IT bi. Marietou mhm. Diédiou moom aspect sécurité bi la. no mhm. na wone que affaire de confiance tey mhm. client bi foog nga woon ko. Euh, relation de confiance mooy daw ba pare da nga koy jox benn sensation de sécurité. pour mun a xam que kii may liggéeyal. kii au moins mu ngi veiller pour sama sécurité. sécurité samay données ainsi de suite. donc ñoom aspect boobu noonu la ñu wane wane que euh, affaire bi du question rek client client la nii mais. dafay nekk koo xamante ne benn collaborateur boo xamante ne da ngeen di évoluer. Mm-hmm. mu nekk partenaire gagnant gagnant donc ñoom aspect boobu la ñu wane wane tamit mm-hmm. ay mesures yoo xamante ne day permettre pour nit ki mm-hmm. mën a ay données ak tamit naka lay protéger vie numérique am ak yooyu donc en gros webinaire bi loolu la woon. Euh, vraiment euh, vraiment euh, le rendez-vous parce que ñoom. Euh, wane nañu que ay ndaw lañu. mais xam nañu def. parce que aborder nañu ay concepts yu bëri yoo xamante ni. Euh, vraiment il faut que nit ñi bi. pour mm-hmm. xool vraiment yow boo nekkee en ligne. Mm-hmm. et yow mi tamit di nekk yow marketing digital nga def wala CM nga. Mm-hmm. Euh, community manager. aspect bi du par exemple rek jël donné nit ki di ko tëralee fu nekk. Euh, récemment rek récemment rek yaagul noonu am na benn community manager bu ma donc ne ma dafa jékki-jékki euh, perte contrôle accès compte mi yëpp yoo xam ne daf ko doon gérer. donc du coup man nee naa ko voie mhm. officielle bi mooy nga porter plainte après nga topp dossier bi parce que mhm. Mhm. tey nii mënoo tamit jëlaat beneen a euh, mu ñëw jéem la kiyal mën a ko doo il faut nga topp voie officielle bi donc sa client yi di nga dem waxal ñoom ne leen vraiment tu as perdu l'accès c'est des choses qui arrivent et léegi nga xool nooy defee Facebook dimbale la ak ñoom Instagram nga récupérer say compte parce que ñoom ils ont prévu des des des des choses comme ça donc moom si ginnaaw après man conseil naa ne ko prochaine fois tu Mhm. boo xamante ne même nit ki bu jëlee sa email ak sa mot de passe au moins troisième équipement boobu noonu de sécurité bi. mënu mhm. ko am tamit. au moins mu ngi ak donc du mën a connecté aussi sa compte. ça c'est sûr c'est le minimum ay ne vraiment war nañ ko mën ñi c'est pas que juste dañuy nekk di utiliser digital bi mais il faut tamit si ginnaaw ñu am sensibilisation nécessaire bi. Mhm. bu leen di permettre pour ñu mën a moytu moytu. bu bëri parce que espace bi y a de danger. non yaa y a beaucoup je pense que sax nekkul ne ñëpp ñoo war a mun a nekk community manager tu vois alors il faut que nga am yenn skills yoo xamante ni foog nga am ko déjà euh, comme li nga wax noonu nga mën a xam au moins que ne identification de alors nag yëpp nag nga mën ko xam il faut que nga ceege ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllum sécurité bi alors kenn mënul am xam-xam yëpp di nga gis nga nekk ingénieur informaticien bu mag mais ci sa domaine kii ca wàllum data la nekk kii mu ci wàllum développement kii mu ngi ci wàllum leneen ak leneen tu waa DevOps kii mu ci la sécurité dafa nekk loo xamante ni dafa war a nekk lu normal pour ñëpp pour ñëpp ci waa ñëpp a war a soucier wu ci sécurité amul kenn ku am kër yaxaar naa te de jël sa buntu kër gi ci sànni teg fële amul wala nga jël sa buntu nekk wekki wekki sànni teg fële ne garaaw di am buntu nekk di am buntu boo saagalu sax di nga xomb di nga installé ay caméra parce que il faut que nga soucier wu si sa sécurité te nag nooy gën a demee si àdduna di gën a euh, di gën a di évoluer am ay données yu gën a sensible di am nekk ci responsabilité yu gën a euh, yu gën a euh, sori tu vois nga gën a soxla sécurité encore tu vois tey di nga gis benn xale bu am quinze ans. moom il peut se dire que ne man ah sécurité ñoralu ma c'est parce que yow yaay màgg aussi tu vois yow yaay màgg te ëllëg aussi bëggoo sa données euh, keneen donc sécurité daal affaire ñëpp la alors Gérard damay dem ci beneen as beneen euh, point boo xamante ni nag moom la ñu mujjee avant ñuy euh, terminer suñu résumé bii nii et je pense que avant ñu terminer sax dañuy wax aussi xaw a bref ci la war a li xew war a xew après tu vois incha allah ci yeneen semaine bi di ñëw alors mais mais gis nañ ne. Euh, fan yi passé euh, yaa ngi demoon benn voyage tu vois man xaw ma nan la voyage bi demee mais xam naa ne benn voyage bi demoon benn voyage bu am solo la tu vois euh, mais est-ce que mën nga ñu voyage lan nga fa fekk exactement ak ban nga ñu indil quoi. gis nga bi maa ngi souri ba léegi tellement que voyage bi <laughs> parce que j'ai vu le partage naa ci émotion. waaw uh-huh. a été intéressant. may commencer ci voyage mooy. Mhm. benn conseil laay jox jeunes yi jeunes yu mel ni comme man ñun ñëpp. mooy euh, booy def euh, benn affaire. Mhm. Euh, bul bul bul bul bul bul bul xalaat yeneen mhm. affaire yow concentré si say objectif. concentré si say passion demal à fond parce que voyage mi nii tey dañ ma sélectionné si samay domaine disant que dama nekk jeune boo xamante ni dama dynamique te dama am benn valeur bu may apporter si sama société loolu moo nekk condition pour mën bokk si mhm. voyage bi. ok genre da ngay c'est pas juste rek nga nekk meilleur dans ton domaine mais il faut que nga mhm. apporter benn valeur. ci mhm. société bi. exactement. et et du coup j'ai été étonné. Euh, que ñu ne que dama damay apporter valeur bon man damay def rek. te te yàlla tax. et bon l'idée de ce voyage c'est euh, prendre les les les les futurs décideurs. Euh, les futures générations de leaders. Mm-hmm. ñu yóbbu leen ñu dem découvrir ay ay ay ay ay yeneen contrées. Mm-hmm. mën a te c'était en Inde. pour mën euh, programme bi dafa du euh, Gen Next démocratie. Mm-hmm. donc mooy euh, la nouvelle génération. démocratie donc si biir voyage bi dafa am plusieurs aspects. dañoo doon découvrir aspect culturel. Inde. en même temps aspect spirituel maanaam seen seen affaire religieux. Mm-hmm. découvrir éducation bi. Mm-hmm. Euh, découvrir seen technologie. Mm-hmm. découvrir ay lieux mythiques yoo xamante ne man. même ku ma yeewoon démb di ma nekk dinaa fa euh, dem man dama ne ko non le Taj Mahal dem naa ko visiter le temple d'or ay lieux yoo xamante ne dama ko doon dégg rek di ko rêver. Euh, dem naa fa et. aspect voyage bi lan moom ma si gën a marqué. ay message laay transmettre jeunes yi yu may déglu. mooy tey suñu bëggee ñun mhm. surtout jeunes africains yi ñu bëgg évoluer suñu dëkk mhm. dañoo war a am discipline mhm. respecter suñu tradition respecter suñu religion et après lu si topp yëpp di nga gis mu jaar yoon dem naa Inde durant dix jours pourtant ñooñu ëpp fop gisuma fa accident de voiture gisuma kuy lekk sandi c'était tellement propre seen rue yi te pourtant du loo xamante ne c'est c'est luxueux wala dara. mais c'est propre et quand c'est propre c'est joli. ça c'est mm-hmm. gens sont respectueux. Mm-hmm. muy mag muy pas da nga gis foo romb dina la nuyu. Mm-hmm. yow nga en fait comme ni sénégalais am na terme boo xam ne par exemple yow foo jaar nuyoo rek ñu ne kii dafa bëri nuyoo. waaw te pourtant foo romb. dañ leen nuyu nuyu nuyu de respect la. macha allah ma visité deux universités. ma loolu moom ma gën dama si laa xam que ñun il nous mm-hmm. reste beaucoup à faire. Mm-hmm. premier université bi université de l'amitié la tudd. Mm-hmm. université boobu noonu dañoo dem ñu ñuy wonal seen matière yi ah université bi en fait yemul que ind ok dafa nekk université boo xamante ne ñoom Inde lañ ko créer mais à travers le monde am nañ fa ay maanaam les pays anglophones surtout am nañ fa ay ay ay ay ay ay campus. ok université bi su ma am na deux matières yoo xam ne luy dama ko dégg rek. Mhm. sama bopp commencé tourner. Mhm. ils font de la nanotechnologie. nanotechnologie ok. ils font du nucléaire. Mmh. imaginez un pays comme l'Inde. Mmh. commence à former en fait ñoom yëpp yi ñuy wax foofu noonu da ngay dégg ñu ne la next. Mhm. il parle de next génération technologique. Ouais, next génération démocratie. next génération politique. en fait ils sont plus dans euh, politique wala affaire ñoom ils déjà dans le next. dans le next ah, ma dem si beneen deuxième université bi ma teg ni par exemple du ma gisaat leneen loo xam ma étonné. Mhm. ma ñëw fek que ñu ngi def science de l'espace. ba jël seen yeneen jeunes jeunes yu ñu yóbbu ñu dem defi stage. ñu créé benn club boo xamante ne jeunes yi NASA daf leen jox benn genre. Mhm. Euh, parti boo xamante ne ñoom. Mhm. sur le monde dañ koy xool. parce que xam nga mhm. NASA dafa dafa yor les yeux dans le ciel. waay si si programme bi bu ñu gisee que yow tu es intéressé par l'astronomie ak yooyu noonu ñoom dañ lay jox benn yow ngay suivre. Mhm. tellement que le ciel est vaste. waay am am am sensation boobu di dund en fait. Mhm. ñoom di ñuy di dund seen passion. et état bi di leen soutenir. et foofu en majorité y a que des docteurs docteurs en finance docteurs en médecine docteurs en informatique. man bu mu fa demee sax en tant que ingénieur je me suis senti petit. tellement que ñëpp rencontrer c'est que des docteurs docteurs docteurs mm-hmm, mm-hmm. en fait ils ils ñoom si seen bopp nee nañu pour développer. Mm-hmm. seen réew il faut que ñoom ñu sacrifier wu jàng ba un certain niveau. pour mën a changer euh, bi te dëkk bi muy changer. et beneen aspect bu marqué mooy bu ñu demee si seen parlement. tout a été digitalisé. identification par biométrie. Mm-hmm. moo fa am genre mm-hmm. yow tey député bi boo ñëwee nga toog sa place da ngay def biométrie. Mm-hmm. ñu identifier la nga ñëw accéder yow si sa cloud. si sa cloud boobu noonu yaa tout soxlawoo sax ay dossier ay sac yu bëri ay kayit yu nekk am na lépp. lépp ci biir résumé réunion bi précédent euh, vote yi ngeen war a def plan tey pour programme bi lépp yow am nga sa écran euh, inter interactif. da ngay bës xool. Mhm. xam même vote yi bu am bu naree am ay question pré question bind nañ question yi ba pare lépp a été digitalisé ma waxtaan ak seen ingénieur en sécurité bi mu ne ma mhm. ñoom ci biir ils ont un cloud interne et cloud interne bi moom mooy permettre ñoom ñu mën a gérer mhm. affaire te cloud boo noonu c'est pas ouvert au reste cloud bi interne mënoo si connecté wu à distance mënoo parce que pour des risques de sécurité et logiciel yooyu noonu ñoom ñoo ko développé du ñu ah. utiliser Zoom du ñu utiliser parce que ñoom à l'intérieur am nañ seen logiciel vidéoconférence si te du zoom du leneen logiciel boo xamante ne ñoom la te ñu ne léegi par exemple ñoo xamante ne seul ñoo xamante ne c'est des décideurs ñooy mm-hmm. e connecté wu à distance par exemple si mënu lay ñëw réunion te à distance te dañuy utiliser pour mën a accéder mm-hmm. si si si conférence bi en ligne waaw donc bu ñu waxtaan on s'est compris ba xam l'informatique c'est général parce que le gars on a parlé on a parlé notion de VPN cloud affaire yooyu ma ne mais pourtant loolu la ñu jàng. mais mhm. lan moo ñu manqué ñun. Ah, juste gëmuñu. Mhm. technologie locale. dem naa foofu noonu visité naa ay. Mhm. ay centre visité naa seen centre d'élection. foofu tamit tout a été digitalisé. le vote hmm. se fait électronique amul carte amul dara ngay ñëw teg sa empreinte. Euh, ñu euh, ñu valider jox la benn ticket rek voté parce que ils un milliard trois cent. te seen vote bi ça prend en compte toute catégorie de personnes koo xamante ne yow gumba nga am na defar defar nañ la benn appareil boo xamante ne ay code mm. mooy euh, kii langage des signes dangay bës xool xam lan la mm-hmm. ils sont tellement ordonnés mm-hmm. que man j'ai été séduit par ce pays mm-hmm. ça c'est sûr dem euh, dem j'ai visité pas mal d'endroits yoo xamante ni euh, je me ah suis dit que Mm-hmm. ñun tey en mm-hmm. tant que sénégalais. Mm-hmm. en tant que africain war nañu mën a tamit inspiré wu. am confiance ci technologie locale te lan moom gën a marqué mooy. j'ai visité des institutions yoo xamante ne c'est national dem foo xamante ni presque euh, yow nii nii ay citoyens ind dugguñu fa. par que pour des raisons de sécurité. mais gisuma fa benn étranger comme ni ñu ne par exemple benn tubaab mooy gérer système bii nii. benn que des Indiens. waaw ñoo gérer lépp quoi. que des Hindous compétence euh, technique yeeg tout le monde quoi. Mhm. ils ont fait confiance à la. Mhm. Euh, à l'expertise locale. ñoom kese ñoo fa nekk. dinañ génne seen étudiants yi certes ñu dem jàngi. Mhm. mais bu ñu ñëwee dañuy gérer appliquer concept bi mooy loolu. et puis actuellement ñoom dañoo créer mooy comme lu mu la wax ñu sentiment boo xamante Mhm. ñoom soxlawuñu vraiment di dem di jàngi feneen parce que ils ont des universités de référence mhm. internationale avec des diplômes accrédités internationales mhm. et ça veut dire que contraire bi di jàng si foofu noonu donc ñoom instant yi loolu lañu nekk di créer non man et ils ont créé de zones beaucoup de zones boo xamante ne attractif ñoom seen histoire ay parc ay ay zones yoo xamante ne circuit boo xamante benn terre la boo xamante ni ndox bi moo ko éros érosé ba affaire mhm. créer ay genre mhm. <laughs> ñu créer fo benn zone mhm. nit ñi di ñëw dagg ticket euh, ñëw def parcours nga dem ils ont en fait un un climat boo xamante ne day permettre ñi sentir seen dëkk bëgg def seen dëkk et je pense message boobu noonu laay lancé muy autorité africaine yi ñu lancé jeunes yi dañu Mhm. ñun suñ ko gëmee. Mhm. mun nañu développer suñu réew. mun mhm. nañu développer suñu continent. te bu ñu nangu bëgg pouvoir. on peut briller sans éteindre l'autre foofu loolu moo am indi dañuy dañuy dañuy poussante entre ñoom. man j'ai on est on a on a visité euh, le penthouse en fait du gouverneur. gouverneur bi comme président. ma ñëw ma posé ko question ma ne ko amoo ay prétentions. yo nekk président wala affaire mu ne ma moom poste bu mu yor actuellement ça lui plaît et xalaatum sax Mm-hmm. ay affaire de kii affaire ku nekk si feene mu ngi diriger moom il s'en tient à ça genre amul sax ay prétention pour ne xaaral ma ñëw nekk opposité wala affaire yooyu noonu mm-hmm. non mais moom ko confié moom si loolu la concentré wu mm-hmm. macha allah et je me suis dit que aujourd'hui ñun war nañu mën a lii parce que Inde aussi a été colonisée comme ñun Ouais, <laughs> Inde actuellement il fait partie des pays yoo xamante ne révolution dans tous les domaines Mm-hmm. ñu ngi ñoom ñu ngi si ñu ngi si imagine la nano mm-hmm. la nanotechnologie mm-hmm. c'est le euh, naka laa ko mën a wax c'est l'espoir de demain avec la nanotechnologie lan la nit ñi mën mën nañ di réparer ay blessures en un de la médecine va sanger tey par exemple chirurgien bi dara def ay opération risquée du sonnati parce que nanotechnologie dinañ fa dem gérer donc imaginer potentiel yooyu doon yëpp war a mën a am non y' a non je pense qu'il y a plein de choses yoo xamante ni a été un voyage tellement intéressant bu changer sama vision des choses. gis que vraiment que ñun on a rien à envier. Mm-hmm. à beaucoup de nations mais juste que ñun jeunes yi. Mm-hmm. war a toog waxtaan concerté wu. mais mm-hmm. ñu jàppante mais dans la main. puusante. et pas nous mettre des bâtons dans le dans les roues. surtout surtout ñu puusante dem kanam. parce que le faut non ah, non non il le faut le faut c'est-à-dire euh, li nga wax nii da nga commencé ci benn affaire boo xamante ni man euh, franchement daf ma marqué parce que dafa am solo da nga commencé ci culture commencé ci religion commencé ci communauté ak yu demee noonu c'est-à-dire nit ki je pense que amour ak gëm-gëm bi nga am ci sa culture sa communauté sa religion sa pays sa nation tu vois fi nga dëkk ni nga koy gëmee. amour bi ngay am ci loolu moo war a driver sa acte yëpp quoi cest à doo war a nekk mën a nekk Sénégal dund Sénégal di yeewoo Sénégal bañ a penser comme un Sénégalais bañ comme euh, ci loo xamante ni day day dimbali réew mi parce que te nga xam ne ni par exemple au Sénégal cas Sénégal lay jël nous sommes plus de quatorze de Sénégalais yow kenn nga ci nga bëgg xool sa intérêt kese yow kenn sa famille benn famille ci. famille yi nekk Sénégal yëpp nga bëgg xool sa interfamille kese et je pense que tey soo jàngee école sixième ba terminale nga demaat université ba am say diplôme mais dafa am benn gouvernement wala ay nit yu ko teg ba tax nga mën a jaar foofu tey ba am xam-xam mais te xaalis bañ ko créer école yi mais xaalis Sénégal yëpp la tey yow nga am opportunité jàng ci ba atteindre yenn niveau yi pare di xalaat sa bopp kese yow kenn. wala nga pare toog sa ruq ne non état bi jëluñ ma ma liggéey noo aw ma liggéey alors je sais dëkk bi métti na compliqué na mais c'est-à-dire bi ngay am ci sa dëkk ak ni nga war a mun a delloo njukkal sa dëkk ndax li la sa dëkk defal tu vois ah donc loolu moo war a mën tax tey li yëpp war a mun a am c'est-à-dire moo war a tax ni nga am discipline loolu moo war a tax nga góor góorgóorlu loolu moo tax nga war a bañ bàyyi ak lu métti métti nga ne man je reste au pays damay toog damay xool nu ma dimbali dëkk bi tu vois ainsi de et je pense que ci la loolu lépp lay xewee tey boo demee Inde boo demee Chine gëm-gëm bi ñu am ci seen dëkk ba fu ñu dem taxawal seen dëkk loolu moo tax euh, lu nekk mu nañ ko am te c'est gëm-gëm dafa am force te teen man euh, li nga wax nii loolu moom ci gën intéresé intéressé et je pense que sénégalais yi dégg nañ message bi je pense que ni euh, yóbbal bi ñu indil tey nii gisuma lu ko dàq tu vois. Euh, visité nga foofu ay ay ay ay ay ay bërëb yu bëri yoo xamante ni gis nga ni ñuy doxee ci wàllu technologie ni ñuy doxee ci wàllu ñëpp te loolu yëpp li ko maye discipline la je pense que discipline ak gëm-gëm je pense que tey euh, message bi jàll na et franchement Gérard maa ngi lay remercier bu baax a baax parce que man fi ma toog nii gën nga ma soññaat sax ci boppam ci vois euh, et maa ngi lay remercier ci loolu bu baax. di ñaan aussi li nga xamante ni yaa ngi koy def yow tamit di li ngay participer ci réew ci Sénégal fii nii ci wàllum sécurité ak yu yal na gën a yokk te yan na ci am aussi yeneen distinction wala nga jëm ci voyager ci partout dans le monde à chaque fois dañuy indi yóbbal yu mel nii euh, voilà te bu te bu la gars yi bu la nag damay ragal gars yi sàcc la ne la kaay toog fii quoi. <laughs> ah dëgg dëgg ah. ni moom kon euh, moom j'ai comme nu ma waxee ah. affaire yi même bu ma gën a jox doole ah. pour ma continuer sama combat bi. macha allah et que. ak sama yeneen jeunes yoo xamante ne dañ ma nekk man maay seen idole ak yeneen ñu may suivre yëpp. Mhm. le don de soi. waaw euh, foog nga joxe sa bopp. sans mhm. attendre dara. et lu si des lu si nar a ñëw dina mhm. ñëw. lu si bëri seen intérêt personnel la ñu jiite. te intérêt intérêt personnel. vraiment du tax dëkk avancé. nañu ñun da ngay gis ne man comme lu may wax gars yi je suis pas le plus doué. am na ñu ma gën Mm-hmm. mais fu ñu nekk ñu ngi nëbbatu ñu ngi toog fu ñu toog ñoom ñu ngi gérer ñu war a gérer. Mm-hmm. le reste nee nañu merci. alors que du mm-hmm. loolu. instant a ce qu'on appelle le don de soi. il faut que ñun tey par exemple ñu mën di jox ne par exemple tey Sénégal jox naa ko. lépp lépp amul dara lu ñuy bàyyi jox naa ko lépp. et Sénégal. ñu mën a xeex pour développer ko ñun Inde ils sont un milliard trois cent seen dëkk mm. ñu defar ñu koy tabax ñu ngi jàng ñu ngi ñun mm. on seize millions xaw ma léegi te pourtant ba léegi y'a beaucoup de problèmes yoo xamante ne mooy loolu il faut que nit ñi di mën a bëgg l'amour de la patrie mm-hmm. booy def benn affaire pour sa réew da nga koy mm-hmm. def ba jeex pas par exemple ngay tricher mm-hmm. il faut ñu bàyyi loolu il faut ñu bàyyi tricher et tout ñu commencer job sérieux concentré wu jeexewu à de telle sorte que euh, vraiment hmm. Sénégal dina jëm kanam macha allah macha allah alors franchement euh, épisode bi moom au top quoi franchement euh, merci beaucoup Gérard et je pense que ne dinañ euh, peut-être mën am yeneen résumé yi di nga ñëwaat soit je sais pas bu am nga jot quoi incha non si si il faut ñu toog il faut vas-y ma ne tey parce que tey nii xam rek comme ak événement bi ak kii bi nii. mais il faut ñu toog def résumé étape par étape. étape par étape exactement parce que beaucoup de choses j'ai vécu voilà voilà c'est à partager quoi amul benn problème incha allah tey je pense ci yenn affaire yu gën a bëri parce que il faut que ñu vulgariser affaire yi ba mu gën a voilà je pense que tey ñëpp war nañ ci jot quoi tu vois surtout naka lañ war a mën a def ba nit ñi mën a jot ci information yi nga xamante ni ñu koy véhiculer rek mu bañ yem ci benn ruq mais mu daj Sénégal gi yëpp loolu man bokk na ci sama combat yi nga xamante chaque jour euh, Euh, beneen euh, beneen beneen semaine euh, ci beneen résumé avec Gérard quant à moi ma leen jox rendez-vous yeneen émission Wolof Tech xam na ci sam bi di ñëw dinañu waxtaan ak ci beneen sujet incha allah d'accord allez Gérard merci beaucoup franchement c'est gentil. ñoo far ñoo far et vraiment maa lay mm-hmm. encouragé ak vraiment yaa ngi def liggéey bu am solo. merci et c'est pas toujours facile mais. xamal mm-hmm. que tu as tout notre soutien. sama mm-hmm. équipe et moi. Euh, muy yeneen communauté yi ak yooyu en tout nu may waxee rek on peut mm-hmm. prier tous ensemble sans que mm-hmm. kenn di prier moom kese pour fay ñeneen yi man loolu mooy sama concept et Euh, à partager à donner ça en temps d'autres récompenses. Mm-hmm. macha allah macha allah. disons loin et maa ngi sàcc parole sa bi mooy. rendez-vous. rendez au sommet non loolu kay yaakaar naa ñun ñëpp jël nañ ko quoi ñun ñëpp sàcc <laughs> Allez, rendez-vous au sommet, Inch'Allah, Gérard. Allez, merci beaucoup. Passe un très bon week-end. Ciao, ciao. Merci, merci. Allez, bye.